coalition Yewwi Askan Wi am doole lool ci l'opposition bi dàq na nag ca biti coalition bu xalifa Sall bi di taxawu Sénégal tey jile nag ngir mu mën a taxawaat ci langue politique bi foog rek mu amal liggéey bu mucc ayub mu di nag gis-gis bu analyste politique bi di Mamadou si Albert. ëllëgu xalifa nag bon du yomb parce que bu dee dee yaa ngi doon xeex fukki at lu teg nga ànd ak benn coalition ngeen am résultat local am résultat législatif. nga bugg a dem présidentielle 2024 fekk amoo coalition bu toll noonu mais loolu ku mu daloon ci muy Sonko muy Gakou muy keneen euh, dafa lay wàññi parce que opposition dafa am euh, importance que booy dem euh, ci élection présidentielle baax na nga am coalition bu lay jàppale bu fekkente ni deuxième tour am na te fekk yow yaa dem deuxième tour buñ sukkandikoo ba tey ci analyste bi moom jàpp na ne xalifa Sall nag mun na génn ci guuta gu mu nekk jamono ji loolee bu dee rek fexe na dajale famille socialiste bi lee. est temps et capacité de mobiliser famille socialiste c'est est-ce que dina am jot ak mën-mën dajale famille socialiste bi yëpp loolee la xalifa Sall bëgg nekk candidat ba noppi te ñi nga xam ne ñoo di électeurs yi waaye itam dem jëli ci électorat parti socialiste. l'électorat socialiste par là le PS n'aura pas par exemple de candidat. est-ce qu'il pourra démarcher tous ces socialistes qui veulent un candidat socialiste ndax xam nañ ne PS du am candidat ndax dina am ndimbalu ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew loole lépp ndax dina ko mën ci diiru juróom-ñaari weer. Euh, de l'influence il a des alliés aussi il y a les socialistes français est-ce qu'il va le faire dans sept mois. ñàkkum confiance ñàkk déggoo ci diggante militant yu taxawu ak militant yu Pastef participation bu taxawu Sénégal ci dialogue national bi loole yëpp di firndeel lu tax rek intercoalition Yewwi Askan Wi jël bile dogal